di may ak dal di dëgëral sa xol wa rasalnaahu tartiila kon laa soxka ni ki nga xam ni nee na dafa bëgg am ak sabaat sax ci li mu ne te goyul ci alquran góorgóorluwul ci quran jàng ko jàng lu jiwu ko kooku mi ngi bëgg a nax boppam nag dëgg la yow mi nga xam ne am ndongo nga da ngay jàng leneen est-ce que bu fekkee école tëj na quran bi dana la jaral nga sukk ci prof doo ko jàngal sa bopp de gis nga benn maat rek benn maat mën nga koo soppi rek wax lu bona bona bona bon quran ñun ni ñu jàngee quran sax salaf bi noonu lañ doon jàngee quran démb ñoom dañ doon jàngee quran bi wasilati talqin talqin am na imam ju mag ju ngeen dégg ci aimatul xadis ku ñëw ibn al mulaqin tur woowu sax daf ko doon bañ ndax paa boobu bàyyi jiit leen la al mulaqin mooy waa ji nga xam dafa doon talqin quran amul téere amul dara yoruma yoroo quran jaa ngi ci dënn bi waa ji day toog nii di wax nga jàkkaarloo moom di ko xool di xool gémmiñ gi ni muy xalxalaat ni muy génnee ma xaarij yi su ko defee ñu ne laqana yu laqinu talqiinan ma ngay talqiin quran ja kon ñoom nun lañ doon jànge day wax ngay déglu muy wax ngay déglu soo paree nga jóg mokkal nga jeex na ñoom nun lañ moo tax ñu ne ibn al mulaqin doomi ki nga xam ne moo doon talqiin quran bi est ce que jaral na la yow moo xam ci oustaz bi ci koñ bi la moo xam sa mbokkum ndongo mi nga dënd la moo xam école ba la moo xam daara ja la est ce que jaral na la nga sukk nga jàng quran am nga moyen boo mën a jàngee quran waaye déedéet dafa fekk ni maanaam quran borom bi subhana taala am na ci fayda ju doy ni nag boo ko jàng ci nag dana ko roof ci dënn yi al quran bokk na ci aqidatu ahli sunna wal jamaa kalaamullahi minhu badaa wa ilayhi yaud ci moom la tàmbalee ñëw mi ngi nii balaa àddina tukki nag yàlla dina ko yëkkati mushaf du fi def dënn ku ko mokkalit du fi def quran jeex tàkk ci kaw suuf moom la borom risaala muqaddima risaala di wax ni minhu bada wa ilayhi yaud kon mbokk yi quran day saa boo xam ni yëg nga xool nga sa bopp gis ni yow sawaroo ci di ko jàng bariwoo loo koy jàng soriwoo ci doo ko tadabbur xamoo lu muy teg doo ko jullee guddi wallahi léenu nga tiit ci sa bopp jéng yomb na la lool tomb boobu mooy tomb bu njëkk bi ci te mooy tomb bi gën a dëgërit ci wasailu tasbit ñaareelu tomb bi min asbaabi salaati ala sunna iljaamu nafsi ala al ixlaasi wal mutaabaati kama amarahu kama amarana rabbuna subhanahu mooy ngalaat bakkan bi nag nag ko nag ci fexe nag muy sellal xanaa kon dafa mel li ma doon wax ni jaamu yàlla bu ñu ne lii ak jaamu yàlla mën na indi sabaat o xonkay waaye lan moo ko indiwaat ixlaas xam ngeen ni sabaat bokk na ci mbokk yi lii tax nit ki ñàkk ko mooy nit ki dafay dem nekk ci mbir ba mu yàgg tayal dikkal ko yonjax dikkal ko wala fitna dikkal ko wala bàyyi xel nit ñi dikkal ko yu demee noonu am na ñi nga xam ne ñoom dañuy sellal nga xam ni seeni wax yàlla moo tax seeni jëf yàlla moo tax boo leen gëjoon a gis daawaati jéeg ba ren ka nga gisoon moom ngay gisaat soppeeku du am am na koo xam ne fi mu nekk nii ñàkk gee sellal sax na jamono ba muy gis nit ñi du bokk ak bu gisul nit ñi jamono bi ko nit ñi naan waaw góor du bokk ak bañ koy jarax ak di ko tasnif comme ni ngeen ko xamee ci jamono bi di wax ay wax jamono biñ koy jox du bokk ak biñ ko joxatut jamono bi mu teewee du bokk ba mu tukkee waaye ki doon ixlaas moom daanaka boo ko gëjee gis dafay mel ni gis nga ko léeg-léeg olof yi sax di ko léeg da ngay dégg duñ ngaa gis diw mu ne am i kooku de moom ka nga gisoon ba léegi mantut moom nam tolloon rek lay toll ba léegi loolu ci wàllu àddina lañ koy waxee ci wàllu sunna it loolu dafa am dafa am ñoo xam ne nañ meloon ba tey dollee ko rek waaye doo gis wàññeeku te loolu nag li koy indi moom mooy al ixlaas mooy sellal te yàlla tax bakkan li mu gën a bañ nag ku ko ca yar mooy sellal bakkan li mu gën a bañ ku ko ca yar mooy sellal ndax contraire sellal lépp ay bànneex la te léppi bànneex bakkan da saa bëgg moo tax foñ bakkan bi yeewu ko ngalaat ko ah di ko xëcc nag di ko jubal jëmale ko ci yoonu sellal waaye bis boo ko tegee ci yoon wi nag ci ngay yëg ni ci ngay am yërmaane ci ñu dul sellal ndax da nga yëg ni ku dul sellal ndekete moom rek a sonn na say wax say jëf say dem ak say dikk say jëflante zaahiran wa baatinan sa nekk ci biir nit gis nga boo gisee nit ñi bal ay imatu salaf dañuy wax ni bokk na ci mandarga moo ne nit ci sellalam àddina te njombaxtal ga mooy koo xam ni moom ay yu baaxam sax lay bëgg muy nëbb mel na magul salaf nee naan lan moo tax du ngeen sawar ci di siiwal seen yu ñaaw comme ni ngeen sa ci ngeen sawaree ci di siiwal seen yu baax doomu aadama lan la sawar ci di ko siiwal yu baaxam man mi toog fi mu nekk nii bu kenn ci woon wax waxoon sama benn baax baax rek seytaane dikkalu ma commencé xuggali ko ay mbagg ndax damay yëg mbir loolu mooy mandargal door contraire am mooy nag arima salaf meloon da ngay gis koo xam ni benn lu baax nga koy waxal mu mere la ci weer benn lu baaxam ngay tudd mu mere la ci weer du la tudd ba yow yaay mujj demaat jéggalu ko nga gis koo xam ni benn lu baax nga koy waxal mu tux est-ce que ñun yegg nañ foofu man wallaahi léeg-léeg bu may comparé dund ko suñu dund man damay tiit nan ñun est-ce que duñ ay munafiquun ndax li kenn ci magi salaf nan maa arabtu nafsi fi lqurani illa wajadtu nafsi min arraasixina fi nifaq mu ne man saa bu ma jàngee alquran daf may wóor ni ca gën a gën a nuur ci naafiq ca laa bokk kenn ku ne ci ñun fi ne bu la waxalee lu baax loo defoon ñu wax ko ba keneen dégg ko li ma yëg ngeen di yëg da ngay kontaan te loolu feebar la dañoo feebar da ngay kontaan waaye ñoom wallahi nit da doon tuxu yaakaar naa qissat ibn al munkadir bu dul ci détail bi am na yenn jotaay yu ma ko mës a nettali sa ñaan ak biig gi rek waa ji for ay kaakaam tuxu génn taarixam fa la jeex ak ima salaf ñi koy tarjamaal ñëpp waxuñ la fu mujj dañu jékki-jékki gis nee na mer ci àddina bi dem na yoon ndax benn lu baaxam loolu luñ ko tuddal est ce que yow yaa ngi fiir di bañ ñu tudd sa yu baax te gis nga seytaan dafa bokk ci pat yi muy lal ci sa kanam pour nga së fakk tal ci mooy gis nga bu ñu lay tuddal ay mbaax mbaax seytaan da koy jël di ko enquête di am fu mu koy denc ci xol bi ni tuddaat beneen baax moom fu ñu ko denc ci xol bi gis nga bis bu si amee ñett ma ngay dugg te ñeent mi ngi tàmbali de ah yow kat kon ku baax nga yow kat kon alhamdulillah sant yàlla yaata ne ñoom jiw yaata ne nangam nangam su ko defee bakkan bakkan bakkan la bul bul génn sa bopp ci buntu bi may wax bu ko defee bakkan bi commencé jàpp ne ah moom kat am nay mbaax mbaax yi naan déedéet jàppal ni sa dara baaxul sa lépp sa safaan la nëppal ndax amoon na li nga jàpp ni lu sell la sax yàlla moom moo xam innama yataqabbalu llahu min almuttaqina hal anta min almuttaqin est ce que ci nga bokk est ce que yàlla mi ngi lay nangu jëf ji nee nañ lu baax la nit ñaa ngi koy wax nit ñi li ñu wax est ce que loolu la yàlla wax subhanahu wa taala loolu nit ki di ci tarbiya boppam nag dafa bokk ci mbir yi gën a tax tiitaange di ko dugg te tiit tiitaange ngi lay dugg rek yaa ngi am sabaat kon sàkk ngërëm wala nit ñi kontaan ci yow wala ñu mere la daanaka ñooy bokk ci yow da ngay jàppee nit ñi rek as asxaabil xubur comme que ziyaare ji bàmmeel ku jëm armene ziyaare ji moom yaakaar naa lay nekk ci sa xol mooy tiitaangeeg xalaat bis boo fi tëddee waaye doo fi nekk di tiitaroo ka wane ay jëf kon jàppee nit ñi noonu beneen bi ci des muy mutaabaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam te moom moo ànd ak al ixlaas ndax ixlaas moom mutaabaa ñaari seex la ñuy judd ci benn biir fexe ba sa yëpp sa lépp nga di ko def ngir sunna borom bi subhanahu wa taala tàggat na sunna tàggat goo xam ne képp ku ci mooy la Abdullah ibn Mas'ud waxoon ca Qur'an danañ ko wax ci sunna képp ku ci mooy yi nga xam ne moom mooy yiy jëfewaat yëpp yàlla mën na lay dimbali ga mucc ci ndax sunna moom comme ni ko imaamu daaril hijra doon waxee mooy gaal ak yéen ci yàlla ñu wax ga yéeg mucc wuute alquran yéeg mucc wuute àll kon nit ki sax ci sunna góorgóorlu te di ko jéem a xam loolu daf koy dimbali ci am ak sabaat kon góorgóorlu ci lépp looy wax lépp looy jëf say jaamu yàlla yi ngay làq na gën a rafet yi ngay feeñal loolu lu am solo la te loolu nag yaa ngi koy liggéey di ko di ko tàggat di ko yar boo wéetoon ci néeg bi di naabi ne mu wóor na ni kenn néew fi keroog jooju laay gën a def effort sax ci naafile bi na gën a baax samay jaamu yàlla dama autorisé wul kenn kenn laa may autorisation pour mu dugg ci déedéet samay mbiri àddina nag mën nga caatu waaye samay jaamu yàlla li nga xam ne samay jaamu yàlla samay def-def samay wax-wax samay nangam bu ca dugg lii kenn ci suñu masaayix yi doon wax léegi nit ki dana def dara sax moom bu waree ma ngay séntu ñu gërëm ko ca loolu moo lay wane feebar am na te yëpp ay feebar la waaye feebar bi li koy dindi mooy wasaayil yi ñuy wax saa bu amee surtout que Qur'an di ko jàng da ngay téytee yi yëpp yaa ngay dem doo ko yëg ñetteelu tomb bi ci wasaayilu sabat ala sunna ملازمة استماع سير السلف الصالح والأنبياء والصالحون من قبلهم للتأسي به تقونا بجيم خم أكا جانج سيرة السلف ثم سلف الصالح مو ينتي الله يا صالحون ييغا خامني القرآن تي جيل تود ناي ورا مو جونج لين أك ñi nga xam ne ñoo ci saxaaba yi ñu ci seen ginnaaw li taassi bihim li tax ñu boole ci tomb boobu dañ dañoo seetlu ni an al uslub al qasasi uslubun jazaba لذلك استعمله الرحمن في كثير من المواضع في القرآن نتف نتل نتل أي قصص نتل أي قصص méthode la boo xam ni borom bi laa wax yàlla subhanahu wa taala sax daf ko jëfandikoo moo fees dell alquran sax التحليل والتحريم والقصص والاحكام القران دانك من تدي واي اسلوب القصص بروم داف كو بامو في القران لو بري لو تاخ نا خم nga ñett li dafa am lu muy ñor ci xol léegi fii tey rek boo génnoon fii nga romb fukki nit yu taxaw ñi nekk li benn mbir mu kéemaane ci mbiri àddina yi yow sa yoon néew ci da ngaa romb rek xamoo leen ñaar yi di nga ci def benn di nga taxaw déglu mbaa ngay romb di ma yàlla nopp loolu am na wala amul li ñuy wax sa yoon da cay nekk wala déet sa yoon nekku ci waaye doomu aadama la yàlla bindee tabia am fitraam ci boppam moo bëgg nekk ni loolu la borom bi xam moom mi bind ni ala yaalam man xalaqa wa huwa latif alxabir loolu tax alquran qisasu alanbiya qisasu salihun qisasu talihun saay saay ci ak ñi nga xam ne dañoo jaar doon borom bi subhanahu wa taala di nettali seeni jaar jaar kon al uslub al qasas yi dafa bokk ci méthode yi nga xam ne dafay sax tax nit ki mën a sax ci sunna maanaam nag di góorgóorlu di saxoog li nga xamante ni moom mooy alquran yi mu cay nettali yi ci sunna nit ki borom bi mi ngi wax ni وكلا نقص وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين سورة هود جيس نبات السبب اللي وعمل في آية بوب سنو برام اللي وكلا نقص عليك مولم تين لي نتل من أنباء الرسل لين لي نتل في خبار يننتي أك يننتي على يجي جيتو ما نثبت به فؤادك بقنا لي تخنا أم ثبات انظر كل البعض بوب ما نثبت به فؤادك day tax nga amul sax baatab sabaat bi ngeen tànn muy mawdoo bi borom bi subhanahu taala dañuy nettali li ñuy nettali xabaari yonent yi ak ñu baax ña saxaaba yi ak ñooñu day waral nit ki am ak sabaat ndax kat da ngay xam ne mbir mi kat ngoyoo ci yow rek am na ñeneen ñu ci ngoyoon ba xëy faatu wuy seen borom jiitul sunu borom ni wa mawidatu wa dikra lil muminin waar la fàttali la xuppe la ñeen ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla subhanahu taala comme muy suratu hud aaya fukk ak ñaar kon boo toppee alquran da ngay gis sabaat gan doon wax kon tomb jàng quran ak bii duggalante waat na mu ne su la lim yëpp ndax alquran moo defee dell waaye wa bil misaal yaqdaxu almaqaal nan jël lenn ci ay amsila rek nga xool ni borom bi subhanahu taala junjee ni sabaat dafay jur dafay juddoo ci nikkil yooyu jël la ala sabir misaal Moussa alayhi salaam te bokk na ci li tax ma njëkkee mooy xam ngeen ni Moussa moom rek moom rek moo am ci yonent yàlla yi koo xam ne xisaan dañ koo détaillé donc d' accord Youssouf am na saar woo xam ne moom dañ ko koo jagleel Moussa amut loolu waaye lim am daanaka gën naa yaatu la Mous Mous Youssouf am ndax Moussa ab juddoom lanu tàmbali ba ak gannaaw ak nubuwaam te loolu moom rek moo ko am ci anbiyaullah kon ñett yëpp Moussa ci biir alquran dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki su koy jàng kat di xam li muy jàng lu mu doon loolu da koy jural ak sabaat borom bi mi ngi nettali ci lenn rek ci dundug Moussa bi Moussa joteeg Firawri ba départ di ñëw ci géej gi borom baa ngi nettali ci surtu Shuara di wax ni فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فرعون توقنا موسى موسى أي فصل ور يرى أي نت يو خمني ني منو نيو جال تا جيجي ني منو نيو تي انظر إلى الثبات في هذا الموقف ينت يالا موسى عندك أو نتم بجب جيج dëkk amatul parce que bu ñu dëkkee dañuy dajeeg firaaw te dañu leen faagaagal jàdd ci tefes amul parce que comme ñu topp leen xuus ci ndox mi amul parce que yoruñu gaal bu ñu yéegee kon asbaab yi jeex na ñi ci yonent yàlla Moussa yi ni ko inna la mudrakuun geesul gaa yi ngi waaj yegsi de dañuy dab de mu ne leen kalla dee duñu dab mukk inna maaya rabbi sa yahdiin mu ne Moussa bi muy wax loolu borom bi defal ko ndimbal li mu ko li mu ko defal ni ci géej gi xaar boobu amul de waaye boo boo boo mu maartaa benn mbir jaar ci mbir borom bi dimbali la nga jaar ci borom bi dimbaliwaat la ba nga xam ne lii mooy dëgg loolu da lay muñ fit loolu moo dal Moussa ndax am Moussa ba am sànnee yat wa yat wa soppaliku jaan wala mudbiran dafa daw parce que keroog le premier jour moo tax mu daw suñu borom ni ko aqbil kaay wala taxaf bul ragal inni laa yaxafu la dayl mursal man ku du ma yónni ab ragal Moussa ñëw taxaw suñu borom wan ko yam koy wan moo tax ci ëllëg sa ba mu demee dajeeg firaaw na dawut borom bi subhanahu wa taala dimbali ko ci lu dul benn yoon ndax keroog bañ dajeeg firaaw na borom bi dimbali na ko ca firaaw na comme tey dana ko dimbali mu ne leen kan la déedéet dund dab mukk inna maaya rabbi sa yahdin maa ngi ànd ak sama borom maa ngi ànd ak sama borom sama borom yàlla dana ma dimbali moo tax ci loolu la borom xam-xam yi lii gis seen baata di wax ni ñu àndoon ak yonent yàlla Moussa day Aboubacar gëm na leen aw demin ndax Moussa ne kalla inna maaya adafa damira ila nafsi inna maaya rabbi sa yahdin waaye yonent bi moom dañu inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun maag yow maag aw maag yow moo tax Aboubacar wax dëgg yàlla gëm leen aw demin ci buntu boobu kon ndax bokkaale nañ ko yóbbu kon loolu da lay wan ne ak sabaat nit ki bu ko xësee am lépp lu ñëwati ci kanamam rek dootul jiitu ci parce que day fekk yàlla lay teewal ci kanamam subhanahu wa taala boo xoolee saxaaratu firawn ci bis kadalik njabarkat ya kara bi nga xamante ni lay xew xew na ci xista bu gudd comme ni ngeen koy faral jéggi ci tafasir yi ba Moussa alayhi salaam gañe firawn ci bi ma anal kalima njabarkat yi daal di tuub dugg ci lislaam jébbal yàlla amanna bi rabbil alamin rabbi Moussa wa Haroun firawna ni amantu lahu qabla an aazana lakum innahu la kabirukum alladi allamakum sihra fala sawfa taalam ba aaya jeex waaye firawna dafa menacé njabarkat yi xoolal bu baax koo xam ne huit heures ci suba bi ngay xëy si ci buxaaba yi gën a mag ci àddina nga bokk balaa jant bee soo nga bokk ci muwaxidun yi gën a mag ci àddina benn ñaareel lan ngeen xam ci kuy doog a tuub ci doog a gëm ak kooku ngënam ni mu war a wayafee ba pare muy am mawqif bu dëgëri nii di wane ku am ci sunna si juróom fukki at bi firaaw na indi ay menaces am dama leen di damay dagg sa loxo ndeyjoor dagg sa tànk càmmoñ wala bu ma daggee sa loxo càmmoñ sa tànk ndeyjoor laay dagg law xabta an na daggate gu ñaaw dina leen fajaraat ay jéeku mbaar ji lakum min xilaaf mooy xilaaf mooy dagg bi dagg fële wala usallibannakum ajmain te du ma yem ci la damay pare pendre leen ci kaw wala usallibannakum fii juzu ay ndax na leen pendre ci tàndarama yi ba léegi xoolal li mu ko wax lépp waaye loolu lépp ànd ak xoolal kii doog a tuub nga xam ne boo ko mën a toon mën naa dellu ci gannaaw foofu maa ngi koy wax ngir lan léeg-léeg nga dégg kuy doog a góorgóorlu ci sunna ñu di ko fitnaan ñu naan xëy na li tax mu bàyyi mooy nangam déedéet nit ki buy doog a war a tàmbali bu dee leeru iman moo tàbbi ci xolam dafa war a mën a supporté xoolal gaa yooyu lan nusiraka ala ma jaana min albayinat gis nga firawn lii ngay wax dugg su noppi ñun duñ la gënale mukk duñu la gënale ak li nu dikk ci ay njub walladi fatarana te suba ga huit heures ci suba lu mu doon giñee bi izzati firawn subhanallah wallahi gis nga ngëm bu tàbbee ci xol lu ne mën na koo def nit ñi bu fàtt ne ba léegi ay njabarkat yu mag lan woon tey rek lan doog a xam sunna ci suba si dañ di dox bi izzati firawn parce que moom lañ gëm ni mooy yàlla waaye ci saata Moussa est ce que foofa dafa taxaw di jàngale waa masalam waat foofu Moussa dafa faa jàngale masalam sabaat daf koo jàngale masalam wàccilu ci yàlla daf ko déedéet wala bii fatara na giñ nañ ci ki ñu sàkk ñu tuub jëm ci moom muy yàlla faqdi ma anta qaad defal la neex innama taqdi hadi alxayat addunia ndeke nag iman bi léemul axir ñëw na léegi kon gis nga de innama taqdi hadi alxayat addunia àdduna dong nga mën a àtte kon am na feneen foo dul àtte foofay àllaaxira kon amanu bi léemul axir ci saasa te discours yëpp xam ngeen xëj boobu Moussa di ko fa def inna natmau an yaghfira lana rabbuna xataayaana istigfaar ñëw na an kunna awala almumin sa saabut ñëw na ila alxayraat gis nga booy toog di seetlu alquran di tadabbur ci ayat yu mel noonu wallahi loolu mooy maa nu sabbitu bihi fuaadak loolu mooy tax na nga gën a am confiance ci li nga nekk loolu mooy tax nga gën a dëgër loolu mooy tax nga gën a gën mooy li yatma inna qalbi ja ibrahima doon wax boo ñëwee ci ashabul uxdud gis ngeen ko wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al-aziz al-hamid ay nit lañ yoo xam ni xam nga tawara saa ngi nii ñu war laa jël sóob la ci biir ak lakk-lakk ni mu méttee waxuma la ñuy sóob la ci sawar ab lakk-lakk la ab lakk-lakk nga xam ne mën naa laal rek fii mu wóor la ni yow weddi sa pas-pas mooy tax nga mucc dëgër ci sa pas-pas mooy tax nga tàbbi ca sawara sa tabaat rek moo la mën a dimbali foofu waaye xoolal tabaat dañ amoon gëm nañ yàlla wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid qutila ashabu al-ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعل بهم الشهود ويكون كابا رك كان دي دال نيو دال دوب كون سبب بوب ني امون بو فك ياغي جانغ قران ديكو سيتانتال ام في لي تي ام ah kon da ngay xam ni kon ndekete kat am na ñoo xamante ni amoon nañu sabaat bu baax a baax a baax ci góorgóorlu ci mbir yi huut alayhi salaam xam ngeen huut ku néewoon doole la ci aw xeetam gaa yi dañ koy wax laqad kunta fiina marjuwan qabla hada yow commencé woon nañoo am ci yow yaakaar ndax yaa ngi tàmbali di ñëw jàkka ja di def lii di def laa wax ay wax yow ndax da nga ñuy digal nangam nangam yow kat danañ la def wax lu wax lu wax loo xam ne gémmiñ ëpp na mu di ko génne wax ko lu bon ak du saag danañ la faa faagaagal de mu ne waaw faagaagal leen inni tawakkaltu ala allahi rabbi ma min dabbatin illa huwa axidun bi nasiyatiha min duni illahi fakiduni jamian summa la tunzirun man kenn laa yéen mbooloo ngeen def leen seeni pexe man faalewuma leen lu tax faalewuma leen inni tawakkaltu ala allah man dama wàkkilu ci yàlla wàkkilu ci ma wàkkilu ci moom daf maa gëmloo ni ma min dabbatin illa huwa axidun bi nasiyatiha dama gëm ni kenn ku ci nekk yàlla moo yor sab nos bu ko neexee meetar doo ko dox kon man wàkkilu naa ci yàlla def leen lu leen soob fa kiidu ni jamian def leen lu ngeen man summa laa tunzurun bu ngeen paree benn njariñ du ko am man mënulu leen ma dara kon ndeke borom pas-pas day gëm ni kenn mënulu ko dara lu dul boromam subhanahu wa taala sabaat googu dafay feeñaat foofu boo toppee ci yoonu salaf saxaaba ya taabiuun ya kooku defe naa yàggees na cee wax ci ay jataay di wane kenn ku ci nekk taxawaay yam doon am ca fitna yu ko doon gaar ca mbir yu mu doon dund waaye mu ànd ak sabab bu mat sax kon loolu kat yow même bu la mbir yooyu gaaragut yow moom alquran jàngi xisas yooyu moo tax bari li mel noonu rawatina bu ñuy tafsir quranul azim def ay dars yoo xam ne xayaatu saxaaba lay doon mu bañ a nekk rek comme ni ñu koy defee organisé benn jataay def xayaatu saxaaba wala boog def comme dars buñ paree ne est ce que moom daal dem déedéet déedéet dañuy war a jug pour dem jëfe ji ko maa xam nga ni saxaaba yi yonent bi loolu la doon defar da leen doon wax pour ñoom bu ñu jógee ñu dem jëfe ji loolu doon def ay jeexintal fu mën toll ci ñoom kon xayatu saxaaba xayatu taabiun te gis nga fi mu ne ñun li ëpp lu nu miin mooy xayatu saxaaba waaye ñu bëndal àll wa tuuti di yër gis nga fi mu ne bu fekkoon te tey dañoo jël ab téere dañoo jël ab téere yow xamoo dara xamoo dara da nga doon dégg saxaaba yi rek ñu def ko ci dund taabi'oon ya xotti fekk ya dindi tur ya toog di la ko tarjamal wala nga di ko liir yow da nga yaakaar ni ñi ñooy saxaaba ya da nga yaakaar ni ñi ñooy saxaaba ya parce que saxaaba ya ñoo leen yaroon dañoo àggoon ci góorgóorlu ba dañ leen doon nurale ak ñoom ba ay nit sa ñoom ñi koy xool kennan jiw de bu la yent bi gisoon dana la bëgg ndax yàggaayaa nuroo kon loolu moo lay wax ni ñoom it dañ leen doon ñitti leen ji yent bi naan saxaaba yi benn bis kat damaa toog ba mu yàgg benn bis kat benn waaye dafa yoroon aw nag di ko di ko bayee dem ba mu yàgg nag wi ni ko gestu ni ko dama bëgg nga ragal yàlla yàlla bindu ma pour ñu may war di dóor saxaaba yi daal di jaaxle yonent bi ne bu ngeen ko weddee léegi laaj leen Aboubacar ak Omar Aboubacar Omar dañ ko fekkee wuñ ko de yonent bi sax fekkeewu ko fa sallallahu alayhi wa sallam ni koy parce que ñii am sabaat ñëpp Aboubacar ak Omar ñooy seeni imam waaye loolu bu paree lan lay def jeexintal ci ñoom mooy ñetti li yooyee ak diw def na nangam ak jigéen tëjoon na muus am naa ñetti li yooyu yonent bi da ko doon def kon uslub bi alquran di jëfandikoo moom la yonent bi jëfandikoo ku deful fekkantal gis loolu kon uslubul qasas yi dafa bokk ci jeexintal yi déglu xayat saxaaba déglu xayat taabiun ah tafsir bu ñuy wax ci tafsir yu mel noona yooyu di ko diglu su ko defee di ko wàcc ci wàkkawal xayaat ci li ngay dund amaana yàlla mën laa defal tawfiq ba nga mën a dëgër ci buntu boobu ñeenteelu tomb bi ci gaawal wa min asbaabi sabati ala sunna al qasdu fi sayri def ndànk nag tomb bi nag tomb mu yitteeloon la lool ndax tomb la boo xam ne dama cee yàgg a wax sama bopp di ci yàgg a wax mbokk yi mooy def ndànk lu mawdoo bi am am solo lim wax lim joxe nit yi lu mu am am solo leneen loo déggee feneen lu mu am am solo defal ndànk nag bul daw jéego yi ëpp sa doole al qasdu fi sayri defal ndànk loolu nag maa ngi ko tënkee ci wala ñi ngi ko tënkee ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xudu min al aamali ma tutiquun jaamu yàlla yi dégg ba ngëm yàlla di fees bu mu tax nga ni bëreet rek ni tey ma defandoo lépp déedéet loolu mënta nekk tey ma defandoo lépp déedéet xudu min al aamali ma tutiquun jël leen ñi ngeen man li nga mën a àttan gis nga su fekkente ni dañ ni dañuy dem fii ba Pikine boo yëgee ne yow mën ngaa yenu paan te yenu siwo aayu da ngay xool guddaayu fii ba Pikine yenu siw ndax foofu dafa sori gis nga yore dafa gudd lool def ndànk borom bi nee na yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra sunu borom dafa nam ak jàppandal na oyof rek na nga koy man rek na nga koy yenn bu mu diis benn yoon bul yëg ni mukk liñ la teg dañ la koo gàll ci sa kaw mbagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis dafa dugg si ci nekk Aïcha bu fekk fa benn jigéen ni ko kii kan la mu ne ko kii la mooy diw si yonent bi xamoo kii kii day jaamukatu yàlla bu mag la jullikatu guddi kii day woor kii day kii day kii day kii day dilim dilim rek ñun bu doon ñu nag kenn ku nekk day taf gémmiñam si kooku day amam commencé di ko ñeeka bëgg a mel ni moom waaye xool leen jàngalekat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni déet Aïcha dama ni max yaa Aïcha mu ni ko xudu min al aamali ma tutiqun jël leen lu ngeen man de fa inna allaha fa wallahi la yamallu llahu xatta tamallu yàlla moom du yokkat moom mi ngi moom ma nga fi da ngay dee babal yow rek yaa yokkat waaye sunu borom moom du yokkat te yonent bi wér na ci sunna li gënoon li mu gënoon a bëgg di jëf ju bari waaye jëf ju sax lu am solo nga ñaata nit ñoo nekkoon jàmbaar ci ay jaamu yàlla tey mënatuñ ko bàyyi nañ ko donc sax ñu ngi def ci sunna alhamdulilah ba léegi waaye mënatuñ ko lu tax parce que dañ caa jëloon lu ëpp lu ëpp nag moom comme ni ko war a waxee tuuru rek lay def day daal di yàqu lii la yonent bi doon jàngal saxaaba ya te it nag saxaaba ya doon te yarante ci seen biir xam ngeen xista boobu Buxaari bi nettali ci saxiixam Salman ak Abu Darda ñoom la yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam boole woon ah Salman ñëw benn bis kër Abu Darda seen soxna ak Abu Darda te waañoo mi ngi sol loo xam ni daal tilima tilim mel ni daal ku borom këram ñëwul ci kër gi añ jot ñu ne ay cëlee ñu añ Abu Darda ni añ leen man suur naa mu ne ko suur naa mooy waxi la mu ne ko damaa woor mu ne ko sa koor gi de kon di nga ko dox tey kaay ñu añ laa wax man du ma la gane si ba nopp ngay bañ a añ mu wax wax wax mu kal ko fi mu ko kal rek mu ne ko di bismillah ñu daal di añ kon koor ko dagg guddi jot mu banaan ci kër ga fin ree rek fi ñu tegee seen laf yi balaa ngaa wëlbati ko rek abadulaa ji xëccee si jaara bi jàpp commencé mu ne ko yee kaay tëddal waa ji tëddal ñu toogaat tuuti mu jugal mu ne ko yee tëddal daal ba ci kanam Salman bàyyi ko ba fajar ngay bëgg a jot te waxtu wa nga xamante ni moo gën sax ca naafi la mu ne ko waa jugal ñun ñaar ñëpp ñu ànd naafi la ba mu paree ni ko gis nga Salman ni ko Abu Darda li ngay def kenn du ko def sa soxna si daa am ci yow àq te gis naa ne joxoo ko ko jox ko ko sa bakkan bi daa am ci yow àq jox ko ko sa njaboot bi am ci yow àq jox leen ko joxal kenn ku nekk àqam waaye ba léegi salman convaincre wul sal abou darda mu ne ko kaan dellu si yéen saa sala biñ dikkee yéen ci yàlla bi lam ko wax mu ne ko salman wax na la dëgg mu ne ko salman wax na la dëgg inna li nafsika alayka xaq sa bakkan bi dafa am ci yow àq sa soxna si am ci yow àq kenn ku ci nekk jox ko àqam loolu moo gën a nekk ak maanu bi kon imam xasanul basri day wax ju am solo mu ne ee yéen sama nit yéen nit ñi def leen ndànk te ngeen jël lu mën a sax ndax kat yow koo xam ne sa borom moom sa liggéey bi utalu ko àq dee rek la am dee rek am na beneen riwaay dene sa bakkan bi mooy fas wi ngay war fas wi boo ko teelalee xooxal te yeggoo foo jóg loolu dafay teg ci ab xadis boo xam ni xëy na daraja saxaaba teewluwuma fi ma toll waaye la muy junj rek mooy fa inna al munbatta la ardan qataat wala dahran abqa waa de yàkkamti woon ba ne day dem tukki ñu war a dugg oto mu ni moom mbaamam mi ci kër gi doy na ko day bañ a paas moom lay waar mu ne ndee ba ci digg yoon ba la ardan qataat fa mu demoon yëgg foo la dahran abqa mbaam ma dee na loolu mooy jël lu ëpp doo yegg fa nga jëm te it mën ngaa yàqu la ci yoon bi kon léeg-léeg bakkan bi te borom bi subhanahu wa taala nu mel noonu lay jëfandikoo ci quran yeneen mu indi aaya ji wax ci sawara tiital la lool ba nga tiit mu fàbbi ko bàyyi indi aaya ji wax ci aljanna léegi mu indi ay xisas yoo xam daf lay dëgëral comme ni ma ko doon waxee sànq léegi mu indi ay mbir yoo xamante ni ñu tëwoon lañ ay bakkan taay taay borom bi mu gën leen yooyu yëpp parce que bakkan ci boppam buñ ko bëggee yar noonu lañ koy yaree buntu boobu nag li tax may wax ni buntu la bu nu xawoon a aajowoo trop mooy dafa bari tey lu ñuy gis nit ku jàmbaare ci sunna lool ba nit ñëpp di yéemu ci moom mu xëy xëy rek xalam loolu day faral di am dëgg la tawaarif yi yi ma doon lim yi gàllankoor am na ci waaye nag buntu bii moom ëpp moo ci ëpp ëppal moo ci ëpp ëppal nag lépp loo xam ne sunna ko jàngale loolu du tudd ëppal moom ëppal kay mooy sunna li na yemal fii yow nga bëgg jël lu ëpp ah waa ji nga xam ne moom nee na guddi gi yëpp da ngaa bëgg a julli loolu loolu ah waaw ku ko man dina mu ko def waaye yu ko mën yomb na de guddi yëpp da nga koy julli bis yëpp da nga koy woor ah sa mbaax daa yegg ci sa dépense sax da nga koy joxe sa jabar ji xii ah déedéet l'islam waxul loolu de wala tajaal yadaka maglu ila unuqika mu ne la wala tabsutuha kull al basti ah loolu li koy waral mooy da ngay dégg ñun la Aboubacar ba yonente bi waxee dane ko loo bàyyi mu ne ko yàlla ak yonente bi doo Aboubacar de loolu tamit bàyyi ko xel dëgg la da ngaa war a roy Aboubacar nag waaye nag doo Aboubacar da ngay roy Aboubacar te nga xamaa ne doo Aboubacar ndax am Aboubacar yeggoon na ci dara ni joo xam ni bàyyi yàlla ko yonenteem ci kër ga sans alal wàññiwu ko dara Aboubacar yaroon nag njabootam ci noo xam ni buñ nee ko bàyyi dépense mu ne yóbbu naa ko kër yonente bi ñoom ñëpp dañuy mën a muñ Aboubacar yeggoon na ci ngëm foo xam ne lu génn këram yàlla muutalal ko ko kon nag royal Aboubacar waaye nag doo Aboubacar de maanaam boo koy roy roy ko ci ya nga mën a yem ndax bokku lii kon yu mel noonu faw nga di ko bàyyi xel ah da ngaa war a joxe dépense lii rek nga am boo yëgee ne mën nga ko joxe de la sax boo ko joxee kenn du la te doo loru kenn du la wax li nga def bon na waaye nag soo ko bëggee def ba lor sa soxna ah su ma wax dëgg yàlla bu fekkente ni tabax yi dañ fay nekk nga ne tabax yi dafa araam damay dëkk ci mbaar yi kese kese kese ba faaw déedéet boo amee mbaar moom dëkk ci waaye nag bu ko yàlla indee lu gën mbaar jël ko nga dëkk ci nangam jii kat boo ko amee baax boo gisee lu ko gën a baax ci nga am ko jëlal loolu wàññiwul dara kon toujours digg doomu dafa baax da ngay koo xam ni day jëfandikoo ci sunna dinaa ko wax mbokk yi ci ay jamono lii nag gis nga ñagab yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ñu dañ mukk ci fu ñu forek saxar xam naa du ngeen xamul taxas mooy ay dégg ñëw ñagal ko ko ca ndax sàkku tiyaaba waaye luñ ko ko ñagal ñagal ñagal bunt yéen jàppale day dugg ci bunt ëppal kat buñ ca yegsee dañ cay teel a wàññeeku lu tax ndax dañuy jàpp ni njur ay mbir ah mbir mi bu yeggee ba nga jàpp ni relation yi war a dox ci diggante góor ak jigéen dafa war a tara tara tara ba ndaw si sant yëkkat téléphone woote ak góor ah déedéet loolu ma amul ci sant ci l'islam amul ci sant ci l'islam dëgg la nag ay borom xam-xam ñoom bu ñu nekkee ci seen réew ñu def ko fa masala bu jibee dama ne borom xam-xam yenn ci réew ma dañ leen laaj masala moom ñoom ñoo gën a xam la seen réew laaj waaye lay cosaan daal mooy fi yëg la ñuy waxante par téléphone lu dagan la góor mën naa woo jigéen jigéen mën na ko nañ wax lu dagan yam ca jigéen dina wax qawlan maarufan góor dina wax waxul na waxulu qawlan sadidan mbir mi jeex waaye ndax daganut déedéet sa dëgg yàlla nag mbir mi yeggut foofu jigéen ji dagal mu jàkkaar ne ku góor ci léegi may wax da nga may wan gannaaw ma wan la gannaaw nga toog kay di wax ah déedéet loolu amul ci l'islam dëgg la nag kudu xajrakum nañ jël suñuy matukaay naa toj samay xet naa feggu naa nangam ah déedéet beneen bi ci des moom mooy jëmmi jël alal tamit di ko joxe jëmmi jël alal di ko joxe di nga gis koo xam ne la mu jàpp moom mooy maanaam moom benn dërëm wër sa fanaan ci poosam di da nga am àq sa bopp sa soxna daa am ci yow àq ndax yaa ko bi yaa ko war a dundal bul fàtte loolu bi su ma ko toppoon damay ragal tomb yi ma toftali yi yëpp du ñëw waaye xudu min al amali ma tutiqu nit ki dafa war a jël lu yem lu dig doomu léegi da ngay gis ay nit yoo xam ne yu góorgóorlu woon nañ alhamdulilah ci buntu bi waaye fan lañ mujj da ngay gis dañuy ci la asfali saafilin dañoo wàcc wàcc wàcc ba bëggatoo sax mel ni ñoom lu tax parce que da ngaa jël loo mënut da ngay def loo man moo tax saxaaba yi ba ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fekk fa Aïcha yonente bi ni muy jaamoo yàlla ñu wax ba yeggal kii naan man dootuma ju sa guddi kii naan dootuma woo lekk damay woor kii naan yonente bi mu ne hey maa leen gën ragal yàlla foofu damay lekk di naan di julli di tëdd ku xemem leneen loo yaakaar ni moo gën a baax sama sunna fas bokk ko ci man kon kat nag tëddal nga jox bakkan bi mu nelaw ba yeew nga naafale la ngay naafale ci guddi gi alxamis ak altine boo ko mënee woor baax na soo mënee jël altine kese baax na su dee ayawu biir nga man baax na noo ko mënee baax na l'essentiel daal na nga góorgóor te xam ne mbir ñi si saa bopp la njëkkante la na nga jël loo man bu mu tax nga yoon jox lu ñu wax rek nga ni lii mënuma ko da ngay ñàkk ci yàlla mu lay romb rek it nag kon iqtisaad mooy digg doomu ci mbir mu nekk dafa am solo mooy al qasdu fi sayir yoon wi daa gudd bakkan bi nga war te moo la war a yegg boo ko lottalee fii doo yegg defal lu yem dëgg la nag da nga liir ci ay matu salaf ñoo xam ne wax dëgg yàlla yeggoon nañ ci jaamu yàlla foo xamante ni allahu bihi alim loolu nag xëy na nga di ko ñaan yàlla si di ko jéem ci mën na la caa dimbali loolu tax aw bakar siddiq dafa daje xanzala ni ko xanzala na nga def mu ne ko xanaa xëy rek nekkum naa feet mu ne ko tuuga waaye li ngay wax nu ko julit di waxee mu ne ko ahan kay aw bakar wax ak xanzala dëgër ci lim dëgër mun kan dem ci yéen fasal ndax moom kat walaw rudduhu ila rasul wa ila uli amri minkum la alimahu alladina yafun bi lu am rek nañ ko delloo ci ñoom yonent bi ne ko waaw lu xew mu ne ko damaa seetlu ni ñun bu ñu dikkee nga waar ñu fàttalilu suñu xol yi day fugg di jonjante kaw asamaan sa dañuy mel noo xam ni waaye bu ñu ñibbee soxna si ne ni jaay kii ni bàyyi rek affaire yi commencé rës yonent bi reetaan dal di jël loxoom dóor ko ci dem ni ko xanzala ndànk ndànk rek na gis nga ni ngeen di mel bu ngeen nekkoon ci man su ngeen ko doon mel seen biir kër yi da ngay laa xattit koñ rek malaaka jox la loxo di la nuyu di la ndokkee ndax seen laay gaay tax seen laay gaay tax ni ngeen di mel ci yonent bi ni ngay mel boo yëgee waaraate ngëm yàlla état bu ngëm bi ngay toll su doon loolu mooy continuer chaque jour da ngay laaxaarte rek mun la saaxat la saaxat sunu malaayka malaayka di la saaxat te loolu xam nga lu am la alxaafid alxaafid ibnu kathir mi ngi koy nettali ci téere bu am solo isaaba di wax ni am na ci saxaaba yi ku yàlla nattoo woon ab feebar mu muñ ko muñ bu jéggi dayoo muy Imraan ibnu Xusayn fekkee fàttewu ma feebar boobu ñu tuddee lu mel ni hémorroïde wala ñu la amoon mu ne malaaka yi dañ doon ñëw këram par fajar di saafoon ceeg moom mu ne fa kaanatil malaayika tu saafihu wa saxaab ndax ngëm yàlla gi fi mu toll ak ñu mu mënee wala muñ kon yu mel noonu maanaam ngëm yàlla gi kat lu mu gën a am gën a baax waaye nag mbir mi kat du dëkk moo tax yéen yàlla da doon kàpp sallallahu alayhi wa sallam mbir mi faw ka kafa am si du ma ree du ma siggi du ma kontaan du ma lekk lu neex mbir mi du loolu de loolu beneen xeetu diine la bokkut ak l'islam dëgg la da ngay ree fa war a ree jotee waaye nga ree lu yem wax fa wax jotee soo paree nga noppi noonu la jullit bi dundee lii nag mooy mën a xëj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñu doon waaraate bay bëtam di xonk cur mu wóor na ni kii kaput fi ne ci lim nekk am na lu mu yëg ci xolam moo doon kap ba saxaaba yi reetaan parce que lu nekk dafa am palaasam su lii jotee nañ ko def su lee jotee nañ ko def boo ca paree pare ko ci kon ñu ngi noonu juróomeel bokk na ci kon ci gaawal la benn waxtu mi ngi bëgg a def wa min al asbab asbab sabat mulazamatu al ulama wa sohbat al salihin al axyar joon joon seeg borom xam-xam yi mulaazama leen mulaazama nag su ma ko ràmmee mooy ni ker di def ak boroomam takk ndeer xam ngeen takk ndeer takk ndeer ni muy def ak sa jëmm loolu mooy mulaazama koo xam ne mu da ngay taxaw ak moom rek ci borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne jàpp nga ni ñii ñoo la gën a baax man nga ko tuddee takkante xarit man nga ko tuddee takkante mbay ci yéen a xam baat yi ni ngeen koy tuddee ala kulli xaal fexe daal ba ñi nga jàpp ni ñii ñoo la xam-xam ñii ñoo la raw ñii ñoo la gën a ragal yàlla ñii day liñ may xeeñ bu dee dëgg la dafa mel ni ay nit yàlla lañ ñooñu boo leen xeeñtoo ba ñu xeeñ la fexeel jege leen nga ànd ak ñoom loolu daf bokk ci wasaayilu sabat yi gën a dëgër la xam ngeen ni kat mbokk yi doomu aadama ci jamono bu nekk dafa aajowoo ku koy fàttali ndax day fàttali daa aajowoo ku koy laahi biir ndax daf koy soxla dafa aajowoo ku koy jubbanti ndax day day dëng yoon wi day aajowoo ku koy xamal ndax dafa réer wallahu axrajakum min butun ummatikum la taalamuuna shay'an kon buñ la xamalul doo xam yàlla nag dafa def ni dafa am ci nit ñi ñoo xam ne mafatixu lil xayri magaliqu li char te loolu rox na ci xadisul yonente bi salallahu alayhi wa sallam Cheikh Nasir mi ngi koy wéral ci sul ahadis sahiha ci xadis ab anas yent yàlla bi nee na inna min annaasi naasan mafatixu lil xayri magaliqu li char am na ci nit ñi ñoo xam ni ay caabi lañ yuy tëj buntu safaan ñoom ku taxaw ñoom safaan daanaka mën naa bañ a yegg ci yow ndax safaan fu mu bàyyi ko rek yàlla dana si def tawfiq mën kaa tëj am na nit ñoo xam yàlla dafa leen defal ay saabi la ñuy ubbi buntu yiw taqoog ñoom yiw da lay yomb xadisu anas moo ko solo te xadis la bu wér mafatix lil xayr magaliqu li char ñoom dañuy mën a tëj safaan moo tax ànd ak ñoom day tax ngay mën a mucc ci safaan dañuy tijji aw yiw ànd ak ñoom day tax yiw da lay yomb kenn ku ci nekk nag faw mënta ñàkk mu am lu mel noonu moo xam góor la moo xam jigéen la loolu moom yàlla baaxee na ko xeet wi catégorie boo dem am na ca su ne ci borom xam-xam yi da ngay gis ni doomu aadama du nekk léeg-léeg dana gis yàlla wërsëgal ay borom xam-xam yoo xam ne chaque fois ñoom kat mën naa ne duñ ay borom xam-xam rek yem si waaye ay rabbaani yoon lan te loolu la yàlla sant yàlla subhanahu wa taala mu ni kunu rabbaaniyiina bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun njàngum alquran bi moom ak njàngale meek yar geeg nekk xam-xam bi bu la jurul nga nekk ar rabbaani mooy li ngeen tudde nitu nitu yàlla loolu la ko war a fi waxee bi maanaam kalima li ñu tudde nitu yàlla ay nitu yàlla nekk leen ay nitu yàlla bi maa kuntum tuallimuuna alkitaab alquran bii ngeen di jàng di ko jàng daf leen war a def ngeen nekk ay nitu yàlla wa bi maa kuntum tadrusuun jàng gi ngay jàng xam-xam di jàng alquran moo la war a def nga nekk nitu yàlla kon jege borom xam-xam lu am solo la moo tax salafu saalex dafa amoon méthode buñ daan jëfandikoo ci seen jamono mu la ñu tuddee mulaazama mooy taqoog nit diw mii kat gis naa ko muy borom xam-xam alhamdulilah yàlla dénk na ko ko góor ko na ko nangam la gis naa ay jikkoom moom kat yàlla baaxee na ko dama ni taqoog moom ñim moom bu la waxul sax ngay gis muy jëf rek da ngay suppeeku yow te doo ko yëg déglul imam ibn alqayim rahimahullah muy nettali ci sëriñ boobu ibni taymiya mu ne wa ilmullahi ma raaytu ahadan atyaba aysan minhu qat maa ma kaana fii min diq al aysh wal bu's wa xilaafi rafahi ibn al qayim day tagg sëriñam boobu ibnu taymiya nga xam ne daf ko mulaazama woon yaakaar naa sax mooy nekk ni eggoon naa ko moom foo xam dafa doon fóotal ku ne jigéen defal góor fóotal ko mu sol ay yéreem mu ni ma bokk na ci li ko gën a marqué ci dundub cheikh al islam ibnu taymiya te waxuqa lahu ibnu taymiya wax dëgg yàlla ku ko xam mu yéem la ci góorgóorlu ak ragal yàlla yàlla yàlla fay ko yiw mu ni gisuma koo xam ni moo gën a seey ak dund gën a am ak dal gën a nuru kuy ku féer ah te mu ni sax da ngay xool ci kanamam mu ni taluuxu nadratu naimi fi wajhi mu ni boo ko xoolee da nga yaakaar ni fii kuy noos la te jamono boobu sax amoon na xëyut ndékki dafa ànd ak ak dal ba yow loo jaxasoo jaxasoo boo ñëwee ñun buñ musaana am problème ba àddina xat ñun ndongo yi mu ni buñ ñëwee toog ci kanamam laaj ko xalaat bu waxee ba noppi dafay mel ni dañoo yoroon bërigo mu yenn ñu tegal ñu ci suuf ñu dem leen ibn ibn al qayim ci téeréem boobu di alwaabilu sayid mi ngi see wax yi may wax mu ni saa bu ñeegtee dañ koy fekk mu nekk ku dal ànd ak tey ma nga ca kaso ba suba ñu koy tiital naa ko boo néewul kaso di nga dugg kaso borom xam-xam yi doon bind ay téere di ko xasat di ko wax ay safaan muy tontonteeg ñoom dëkk ci di woor ak di góorgóorlu ci ay jaab maam li mu bëgg a wax mooy problème yi mu yen woon li muy bari bari bari yàlla def ko defaloon ak dal ba boo xoolee xar kanam da nga yaakaar ni kii kuy noos te amaan na sax boo demee amul lu mu dékkee ñaareel bi moom mooy problème bi yoo mën a am boo dikkee mu dalal la delloo ci alquran te loolu mooy njariñal taxoog nit bu baax taxoog borom xam-xam. da ngay jël àddina yadiqu alayka al ardu bima raxubat fekk jëru ko woon suuf si bëgg xat ci yow te fekk yaatu na la dekk jaru ko lu xew yaa bëgg a fekk lu toll ni mbaxana nga def ko mbaar mu dalal la wàcc la ba nga wàcc te loolu bari waa na moos loo koy gis ci ay ima yi daanaka koo jàng seen dund moo ci fees xam naa yéen a ngi fàttaliku imam qisat imam ahmad ibni hanbal ca jaafar al anbar abu jaafar al anbar yi ba mu dajee loolu pour war nañu la maanaam taxoo ku baax li muy def jeexintal ci nit ki ci mën a am sabab imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa mi ngi ko amee ci mahad xalq al quran qissa boobu xam ngeen bi muy ñëw it moom it nag wax dëgg yàlla dëgg la amoon nag sabaat waaye nag jonjon ceeg ku baax da koo dolli sabaat nee na abu jaafar al anbari dama jékki dex gi abu jaafar al anbari mi tëll yegg si ni kan ci yéen mooy imam ahmad ma ne ko maa ngi nii mu ne ko innaka al yawma ra'sun wan naasu yaqtaduuna bi gis nga fi mu nekk yow bopp nga ca kaw la la nit ñi xool nit ñi yëpp yow la ñuy rey gis nga boo demee ci kanamu ami mamun lum la fitnaal fitnaal fasbut na nga sax wala taqul bi xalqi alquran alquran bi njëf lawul bu ko na nga wax mukk ndax boo ko waxee su dullul naasa jamian di nga sànq nit ñi imam ahmad sëgg jooy ba jooy metti waa ji dara dem mu téye ko ni ko li nga wax laa bëgg nga dékkalaat ko sama nopp bi ndax daf maa dolli ngëm waa ji jaaraat ci kon ndiki jonjante ku baax day jur loolu beneen bi am na beneen waay boo xamante ni ab kaw kaw la sax xam naa xamaa ne ca kaw kaw ca kaw kaw ya la bokk mu ñëw bi mu ñëwee fekk imam ahmad moom it mu toog bi mu dikkee mu ne ko gis nga mamun gis nga amit mu amut lenn lum la mën a lu dul rey laaj jaasi nga dee te am naa yaqin ci ni bu la reyee nga dee ci jaasi da nga am shahada amal shahada nga dem àjjana mu jeex imam ahmad nee na même damay ne ca kaso ba sama fàttali ko waxi kaw kaw ba rek damay gën a amaat sabaat kon gis nga nekk taxoog nit mu di la orienté dina ci bënt ak imam bi doy ni imam ahmad di ko aajowoo kon keneen ku dul moom taxut di wax kon doomu aadama ak fu mu mën a doon te waajoo ji mu ngi doon jaabir ibni amir bi moom ne waaw kii na waaw kàddu yi kii ko wax ñun fu mu jógee xanaa borom xam-xam la ñu ne ko kii de jaaykatu kii la sax yére jaaykatu leen yére yi ñu defaree leen lay jaay moom daanaka du borom xam-xam sax kon nit ki feexe jéem a am ku baax ku mu takkool di jonjoon teeg moom di dimbalanteeg moom dëgg la même bu dul borom xam-xam mën ngaa gis soxla yàlla da koy tàggat baaxal ay jikkoom léeg-léeg nit dina ñëw di jàng ci yow nga naw ko dëgg la moom dalaa naw ko dina nawee xam-xam yow nga naw ko ndax ay jikko ndax yàlla nag mooy séddale leneen gis koo xamante ni sax jigéen la yow ngay góor ba noppi ngay roy ci moom lu tax parce que yàlla moo ko defal tawfiq yàlla mooy séddale ñoom te loolu nag day wane màggaay yàlla ndax day maye maye maye maye maye maye ba da nga naan kii maye du jeexal te loolu nga war a wax ndax kooku du jeexal kon buntu boobu tamit mu tënku noonu donte am na nu mu mënoon a gën a yaatoo beneen bi ci des mooy bokk na ci yi tax sabaat xam naa ñu tab yu bari ndax waxtu dab nañu ak sabaatu ala al xawf min suuy al xaatima tiit ci sa mujjantal ñaaw bokk na ci yi tax nga am sabaat al xawf min suuy al xaatima muy saa boo xëyee rek jël laaj sa bopp fooy mujj ci looy mujj ci lan nga doon mujj mbokk yi bu waxtaan bi yemoon fii man bu ma jugee ma laaj sama bopp ci lan laa nar a mujj kenn ku nekk ci yéen mu laaj boppam ci lan lay mujj est ce que am nga yaqin ci ni li nga nekk ci lay mujj ñaata ci ay nit nga xamoon ñoo xam ne sax du ñooy dégg seen siira ñoo doon gis la ñii di ay góor ñii di ay jigéen ñoo xam ne seen ak njàmbaar ci sunna fi mu tolloon yàlla rek moo ko xam koo xam ne wallahi da ngay ñaan yàlla alaxira bu la yàlla dee xisaab na jël sa jëmm ji boole ko jëfi waa ji àtte la maanaam yow bëggoo say jëf jëfi jiw laa bëgg dem nga ba yegg ci ñaan yàlla say jëf nañ ko sànni jël jëfi jiw àtte la ci kooka bu demee ba wadd génn ci mbir mi ci nga xam ne mbir mi lu tiitlu la maa ngi fàttali ala ujalatin saria ndax mën a romb fàttaliku leen ni mbokk yéen ci yàlla bi nee na kenn ku ne bi mu nekkee ci biiru yaay ñeent fukki guddi ñeent fukki guddi ci ñetteelu ñeent fukki guddi ci riwaay yi gën a dëgër am yeneen riwaay yoo avant loolu sax donte mi ngi ci muslim ci la yàlla yi yabal malaaka mu bind yéppam ba bindaale ashaqiyun am saïd keroog bi ko yonent bi nit ki ne saxaaba yi dañ ni ko ñun day kon fa fiima la amal jërul ñuy liggéey kon kay nan toog rek xaar dogal ba mu ni déedéet yaamalu kullu muyassaru lima xuliq ku nekk yàlla da koy jàpp dalal fam ko bindal bu dul loolu rek mu neex waaye lan moo fi indiwaat nit ki dana góorgóorlu dem ba dara dé doxut digganteem ak lu dugg dugg àjjana sebre mu def di waa safara loolu mooy ci mooy ci bu fekkoon loolu jóge na fi mbir mi day baax kon boo nekkee tey ci sunna nga xam ne amatoo problème mu ndax li ma nekk dëgg la waaye problème bi ngay am mooy ndax dinaa ci dee aka yey ñaata ci ay saxaaba ñoo murtad génn ca xurubu ridda ñu rey leen ci ñoo xam ne gis nañ yonent bi daan dégg baatam ba mu di leen jiite ñaata julli genn julli goo julli rek ci mbooloo ñu tegal la ñaar fukki daraja ak juróom ñaar nga jullee ko ci ginnaaw yonent bi ñaata daraja lay doon nga jullee ko ci biir jàkkaam da nga xam ne ay junni junni ràkk lan la koy fayal muy ñaata siyaaba kooku julli na julli yu toll noonu ci ginnaaw yonent ba nag mujjut fenn sudut fii yow nga am yaakaar ci ni kon li nga nekk da nga ciy faatu ah loolu nga yaakaar ay nit yoo xamante ni fekkee nañ ay xare ba saxaaba yi ci yéemu ci ñoom diw day nangam nangam ak xam ngeen shahada nga xam ni topp deret bi njëkk soq ci suuf si la sunu borom di fomp say bàkkaar yépp xanaa bor la lay bàyyi nga tàbbi àjjana ba pare nga mën a génn ca loola dem ca leneen nga gis koo xam ne daana góorgóorlu di muuru bay juree ko alhamdulillah ci suuf jàmbaare lool baatam doo ko dégg da ngay laaj sax ndax kii dina reetaan la la dee da ngay laaj ci est-ce que dina ree ndax ni mu amee fulla ni mu amee fayda ci boppam góorgóorlu xëy xëy rek mu ree ko di sollu ba lii li ñu gis la yéen bu ngeen ko gisoon ñoom gis nañ ko koo xam ne dafa góorgóorlu woon ci sunna yegg ci tar ba nit ñi sax ñemewuñ ko woon mu mën a dem ba watu sikkimam buubal tubayam sol ay costume nekk ca yeneen bay jëflante sax jëflante riba ci banque yi may wax ñetti lu may propagé li am ci mbir mi li ñuy dund laay nekk li fi mu ne nii loolu mbokk yi képp ku toog sa biir kër te tiitalu la xamal ni ngëm gi nekk sa xol ngëm gu baaxut la amalu la njariñ waaye da ngay tiit ndax li nga nekk di nga ci mucc wala déet am nañ suñu mbokk moo xam ni maa ngi fàttaliku li may nit li guddi gi mu amee woon mi ngi mel ni tey ñu toog booba yàgg na booba defe naa ñoom sax yoragu nay soxla yàgg na ñu toog di waxtaan mbokk mi kaddu ga nu ko ko wax ba léegi def naa yéeg mbokk mi mu ni yaa xii yéen ñëpp bu ngeen jógee na ngeen ma ñaanal sabaatan man bu may génn ci sunna jigéen ma ne may génn de bi mu koy wax maa ngi toog mbir moomu tey bëgguma leen nettali sax xelam la nekk tey te ñoo doon am di góorgóorlu mbokk moom maa ngi fàttaliku mas na maa fekk sama kër sama néeg maa ngi taal rajo bi di ñuy déglu ko da dég da dafa doon daal sawar waaye dégluwul woon leneen ci leneen lañ nekkoon waaye pour woon na mbokk mi ni mu góorgóorloon ni mu jàmbaaree woon rajo baa ngi taal ñu ngi wax dëgg li ñu def njuumte la donte bàyyi woon ci woon xel mbokk mi dafa tëb rek daal ci sama kaw téye ma nii mais yow xanaa dangaa dox alquran jaag arsale ma wax ma loo xam ne te kat saam ndongo la woon bi fit bu mu am ba ñëwee ma def na lu yéem ma xam naa njëma ko yóbbee woon naka la quran bi jàngee ngay wax wax wax yu garaaw sax ma ne ko maa ngi jéggalu damaa juum mbokk moom tey bu ma leen waxoon ci lu mu nekk wallaay di ngeen xam ne mbir mi jar na tiit am na ay nit yoo xam ne fii dañ leen a xamoon ci góorgóorlu ci jàmbaara ni tukki buñ la waxee tey lan nekkee fan nekk ma allahu biha alim yàlla rek a xam ñii fitnatul nafs seen bakk na leen dëpp ñii fitnatul maal ala leen dëpp muy sësin ñii adduna ñaar parce que amagul woon liggéey parce que élève la woon da doon jàng bi mu demee bañ fal ko rek iltisam dala jël sunni dafa mel daal dafa jëloon sunna def ko occasion pour yéeg moo tax li kenn ci suñu masaayix yi naan ñu bari ñu ngi naan bu ñu amee dañuy dimbale daaw mu ni bu ñuy am di bàyyi daaw bi waxam jooju dëgg la dëgg la da ngay iltisam parce que da ngaa ñàkk est ce que yow bu la wërte bu àddina gane fi woon di nga continuer mel ni nga mel am na koo xam ne fitnatu nisa jigéen ñoo leen fitnaal fitnatu subuhaat fitnatu sahawaat ay bànneex xam na koo xam ci mubtadia ya moom fa la dem sax tey am na koo xam léegi sax saaxir la faf fitnatul manasib koo xam ne tey ay téeméeri téeméeri téeméeri nit yoo xam ne ñëw nañ ci sunna tey te tey siyaaba lañ waroon a doon alaxira ndax xam ngeen ni ku gër góorgóorlu ba jindi nit di nga jàam pourcentage alaxira fitnay manasib poste yeeg yi ñuy falaateeg yooyu tax nga bàyyi sunna gannaaw yii yëpp mi ngi am kon mbokk yi tomb yi ñu waajaloon ëssoon na yooyu waaye dafa mel ni waxtu dab nañu ala kulli xaal tomb bii ci mujj day bokk na ci tomb yi am solo boo ko booleeg tomb bañ tàmbalee muy mooy ci quran dafay bokk yi gën a am solo ñuy góorgóorlu di ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax bokk na ci wasailu sabaat yi gàttal waxtu moo tax tudd ñu ko mooy addu'a muy ñaan yàlla surtout lu mel ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab di ñaan yàlla saxal la di ñaan yàlla dolli la iman di ñaan yàlla musal la ci sawaarix yi wallahi nga yii sawaarix benn benn xëcc na ci rek ñaan yàlla sax gàtt fan bañ koo fekkee ko gën ñaan yàlla nga gàtt fan bañ koo fekkee moom moo ko gën nu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sal allahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain
salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ñu ngi ñaanal yàlla subhanahu wa taala oustaz yàlla daal di barkeel li nga xamante ne mooy xam-xamam daal di koy dolli may ko ilman naafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbala ñun tam yàlla may ñu ay xol yoo xamante ne nii bu ñu déggee rek dañu daal di jóg pare pour daal di jëfe ji li nga xamante ne nii moom lañ ci jëlee amaana li des ci li xaaj bu njëkk bi ci waxtaan bi muy li nga xamante ne moom la oustaz mënoon pour jaaral ñu ko mën nañ ne jàll na mu def ay quelques questions yoo xamante ne ni mbokk yi sàkk woon nañ ci ne yées ci waxtu bi ñu jéem koo leerlu bu ko defee ñu mën cee jëriñu bu baax a baax question bi njëkkoon a mbokk dafa wax mu ne bu ñu seetloo bu baax a baax kenn ku nekk ñun bu la fekk boom bi ñuy doog a tàmbali ci ñëpp di jéem a góorgóorlu ci sunna xam-xam bi ni mu ñàkkee woon waaye li ñu taaware woon ci ay jëf nekkoon ñoo xamante ne li mu daal dégg ne sunna la rek dañuy pare pour daal di jëfe ko moo xam ci ay woor moo xam ci ay julli moo xam ci ay façon ibadat bi mu mën ci nekk waaye tey xam-xam bi dafa gën a bëri nit ñi gën a gàttal ñu ci jëf muy laaj loolu lan moo ko waral ak yan dénkaane ngay indi ci loolu ah laaj bi dégg ma ko xaaral tuuti waaw ay naa maase mu ne dañoo seetlu ne bi ñu ñun ñëpp bi ñu doog ci tàmbali di góorgóorlu sunna wala ñu bëri bokk ci ñun lu ñu mësaan dégg ne sunna la dañuy pare pour daal di koy jëfe nekkoon ñoo xamante ni ay jàmbaar lañu woon ci wàllu jëf lu ñu dégg rek dañuy jéem a góorgóor yàlla suñu bopp daal di ci daal di koy jëfe te jamono jooju xam-xam neew fi woon waaye bi ñu seetloo ne xam-xam bi dafa gën a bari kenn ku nekk yokk nga ci wàllu xam-xam waaye jëf bi dafa gën a néew muy laaj lan moo waral loolu ak lan mooy saafara li
alhamdulilah wasalatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain ala kulli xaal loolu day ci li nu jàpp am nay sabab yu bari te it noonu ma ko géndee ko noonu la amee ci ñun ñëpp di isaara nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci sunna ci ñun ñi ëpp ci ñoom ñu xéroon lañ ci jàng quran xéroon ci sunna doonte xam-xam ba bariwut woon loolu nag ci li ñu seetlu ñun am nay sabab yu ko waral bi ci njëkk doomu aadama lu mu miinagut moom lay gën a fonk lu mu miin doomu aadama lépp loo xam ne miinagu ko moom lay gën a fonk ci lu mu miin sunna boobu dafa beesoon miinaguñ ko moo tax saxaaba ya lañ doon dund ba yonente bi dund te mu jëntal ko dundatuñ ko mbir yi commencé parce que mbir yaa ngi bari kon mbir buy doog a ñëw àndaale beesaayam ak nit ñi mu xamee kumpa ni mu ni mu bañee kumpa loola ñàkk gaa miin day waral mu sawar ko lool tey amaan na miin ji am na sunna bari lool li benn mag magum magum daara daan wax buñ ne mbokk yee baax muy dañoo bëree bu rek bis buñ bëree baax gi day wax jooju da daan metti ñi ko daan dégg waaye nag dëgg kooku benn la beneen bi ci des mooy maanaam mbir mi yittewoo xam yittewoo xam am na solo trop waaye yittewoo jëfee ko solo mbaa xam nga ne ak salafu saalix ñun lii nu am ñun amuñu ko woon kër yi bari lool masala moo soxla moo tax xam naa kàddu la boo xamante ni dina dina dina booyal gémmiñ yi ndax duñu dañ di ko wax gis nga bi ñu gisee téere yi tàmbalee yomb ordinateur yeeg internet yeeg xam-xam ni fépp ci laa ne woon mbokk yi barkeb xam-xam nuyoo la mi ngi dem yoon te wallahi wax jooju tey daal juróomi at ci ren wala ñeent bokk al aqal maa ngi fàttali ko kàddu bii ma di ko wax maa ngi koy yeesalal bis ni ci tey xam-xam moom barke baa ngi dem asalafu salih ñoom abdoulaye ibn abbas ñoom dañ doon wax ni ñoom seenam njàng du woon comme ñun nit ñi def përëx përëx dem ñoom dañ doon jàng fukki aaya tuuti dem jëfe ji suñ ko jëfee ba yëg ni ñu ngi koy jëfe jëlaat leneen kon boo seetloo ñu njëkk ña ñoom li ñu doon xam lu néew la waaye bu ñu demee dañuy daal tàmbalee yar seen bopp ci jëfe ko mbir mi daa baree lool suñuy bët li ñuy jëlandoo ëpp te it nag tiit lu lool ndax fajjala alay na kémtalaay li ngay xam li muy gën a baree muy nekk xujja ci sa kaw kooku bañoon a xam lu bari sax moo ko tane ndax xam lu bari te gisoo ko dafa bokk ci li lay alal tey nag xadis boo wax gaa yi xam nañ kis